Toujours dans votre acte du jour de ce 28 octobre 2024 une fois jógee dama bëgg ñu cette yi vidéo boo xamante ni euh, sponsor officiel son collègue, leen ko may ñu le soir Sonkolé moo leen di may série dans la peau de menteur ab avion ab ñu peinture ko pour nous inaugurer le lendemain avion ba mu jot ne inauguré na ab train boo xam ne daf na ci mille deux cent milliards waaye train ba nee nañ dans six mois la ci Sénégal yi mën a dugg lool loo koy inauguré fii nag ci Kaolack fii nag ci Kaolack nee na inauguré na université du Sine Saloum daf leen di nax nee na inauguré na ko ak ñetti bloc benn bi nekk fii beneen ba nekk Fatick beneen ba nekk Kaffrine dama ne la ci 2016 bi ñu fa tegee premier pierre ba léegi bâtiment taxaw fa amul dara luñ fa tabax ay bâtiment lay dem lu ne jël xale yi sacrifié leen amul campus pédagogique amul amphithéâtre amul fenn fu ñu jàngee waaye bëgg a nax askan wi moo tax mu dem ne inauguré na ko gis nga université boobu bañ ko commencé ak léegi jox nañ ko ñaari entrepreneur nanguwaat ko parce que ñooñu nee nañu mënuñu def université bi ci condition yooyu moo wax leen ni amul dara lu am surtout vous université boobu ci mandat Macky Sall bii bu ngeen gisee université bu ngeen gisee université bu taxaw fii ci Saloum su ma leen nee Sonko laa sant weddi leen ma. yow moo leen di may seen série dans la peau de l'homme.